nu nu defal leen ay bagages terew leen teral leen. ci loolu ci yooyu la nekkoon nii. ci nga nekkoon. <laughs> yi ngay wax nii. ci yi nga yi nga wax mooy boo ci nekkee moom mën a attaqué. xam nga xale yi. waaw ay xale lañ yoo xam ni yow kii ubbi ma. ubbi <laughs> ubbil ko mu wax. ubbil ma waaw mën ngaa wax. ubbil ko nga bu yàgg. ku yor Yacine na ko yor wala Ablaye Diop. Ablaye mooy reti ji mi. waaw ayca ku ci yor nag rek ki mën naa ubbi. ayca xale yi. waaw euh, Diagne faaw ñu leen di bàyyi xel. waaw waaw waaw. parce que am jom weesuwul. Mm. sa mag ñi fi ñu jaar yow nga ni foofu ngay jaar wala foro foofu nga bëgg jaar wallaay dëgg la mm. wallaay dëgg quatrième fois baa ngi nii waaw ñuy di final dem final macha allah bu ñu jëlee coupe buñ ko fi indee na mel ni mm-hmm. ñu mag ñee ko jël tubarkàlla mais romb na accident bu métti accident ah, fan waaw oto bi def na sept tonneaux sept tonneaux ci ndakaaru njaay gii wëlbatiku taxaw mais plus de peur que de mal kenn gaañoo ci fan la loolu accident bi yoon bi ah nañ moytu yoon boobu daal yoon bi accident bi abaan da nga da nga gis accident si yoon bi nga ñëw. ah man dama ko gént rek yeew rek. <laughs> waaw yow dama nekk da nga nekk Abba nga ne Abba da nga ni photo. <laughs> maa ngi leen di kontaane eh, maa ngi leen di nuyu Diagne. au carré ah Diagne au carré maa ngi kontaan ci yéen ah, di bég ci auditeurs yeeg eh, internet yi. Mm. par yenn saa ma xool. Mm. Eh, ndax xale yi bu demee bàyyi leen ak liggéey bi nañ ko mën a gérer. xale yan ma toog ci escalier. <laughs> waaw defal pause non xale yan kan kan ngay wax xale kan. ah Diagne. bu ma dara laal bu ma xonq bu ma laal. dañ de te Diagne sama habitude rek nga yor doo bàyyi dara mu jaar. xam nga man Abba gis naa yóbbu ñu ci boo géej ci boori cimetière yi fii duma ko. waaw loolu ngay mais duut soow. Assane Diallo mujjee yóbbu loolu laa fi gis. te boo ragal naa ne tey boo wàccee naa boo wàccee dana yóbbu. te bi duut soow di ñëwaat di romb xàmmewul autour <laughs> daa jéggi rek romb daa jéggi rek mën nañ ko rey <laughs> mais ci li ngeen nekk rek. sant yàlla baax non fi ngeen nekkoon am na solo. waaw tubarkàlla. Mhm. loolu doon wax ci affaire xale yi ñu jàpp si. Mhm. ja ñaanal leen nu am ndam. Mhm. ndax danoo danoo mérité ndam loolu. ndax boo qualifié quatre fois. demi finale dem finale quatre fois. Euh, dafay jaadu bii nag nu ñibbisi ak mbégte. carrément waaw te loolu daal mooy suñu bëgg-bëgg si ñoom. am na solo waaw na ci na ci yow kii Aba man daa am xam ci réew mi nag faa faa moo waxoon nag man damaa bëgg xam ndax jàmbakatu saabu yi xeesal yi dañoo am récépissé laissez-passer ci réew mi wala ñoom dañoo moom réew mi ba lu leen neex def lu leen neex wax te kenn du wax. lu xewati ñam njambum saabu. damaa xam ne que fan yi ñoo pañe dëkk bi. dafa laaj récépissé njamb saabu rek. maanaam ñi jàmb saabu yeeg xeesal yeeg yooyu léegi ñoom maanaam xeeb nañu jaay bi sax léegi. Mm-hmm. mais seen ay guerre yëpp ci ci internet internet lañ koy def pare wu ci ñoom léegi dañuy attaqué seen biir. di xeex pour pour maanaam. geer guerre maanaam ci jaayam saabu. ah bon xeex. Ah, am na def ay live di sànnante am na ko ci dem dem këru keneen këru moromam de ba kooku ci def vidéo naan mi sama kër. Ah ñëw di ma waa police bu fekkee yéen a ngi live bi ñëw leen. waaw jaay saabu jar na loolu. jaay saabu rek pour sang. te li ñuy jaay daa baaxul. Hmm? jànguñu ko. yow yow dèjà yéen ministère de la santé war leen interpellé interpellé wu leen. ñu tok di jamb ay bërigo kenn xamul fan la jógee kenn jàng ko ci ki da doon jaay crème ñu di jamb saabu kee da doon xam na ñu di jamb saabu waxtu ñu doon léegi ñom dañuy guerre ñom ci internet bi léegi way xam nga nak lepp lu ko lu ko sabab ñay dem jëndi saabu ca ñoom ñooñu ñoo ñom ñoo leen yok doole ñoo toñ wa réew mi hmm. man su may jëndi mburu dama ko jënd ci boulangerie ba su may jëndi ceeb ci restaurant dama ko jënd ci restaurant bu set te bako nek saf loxo su ma jëndi saaba pour sangu dama ko jënd ci boutique bi mbaa ci pharmacie bi waye sabu yu nu jamm yo xamne xamul nu ko jambe nga jël ko di ko pour xees nit ñi dañu wara baye bàyyi te gëm seen bop ku ci ñuul nga nangu ñu nga ñuul bo ni kok leele nga gis ci xale bu jigen bu ñuul bo xamne bu réewee rek soxal bi gu ndanda day wane day mën ne wanagu mboot léeg-léeg gis ci xale bu xees pecc mo tam bu ku ñuul na nga ñuul nangu sop ku nga nangu ndur ak mbeje fay nenañu senegal jigen ñi dañoo rafet dañoo xees dañoo ñuul te ñëpp son jëru xeex xulo en tout cas dal war ngay fexé ci aduna ci looy nekk nga am ci certitude wala am ci assurance ba suba du am benn effet secondaire boo xam ne dina la ci dal dëgg dëgg waaw yoo xam ne moom ci hôpital yi ngay mm. mujjee ak yooyu moom boo ci dem nañ ci dem ak sa xel am na yoo xam ne c'est inutile moom dama xeetu xeetu cancer yi nga gis muy bëri si dëkk bi yëpp ci yooyu lay jógee démb bi fii boori ministère de la santé benn médecin kenn du ci wax kenn du ci wax démb boori ngoon si daja naa fa benn xale bu jigéen dama ko romb sama oto dama koo xool di ko xool di ko xool ba rus dafa ñuul abab ba xam ni dafa ñuul mu sol bu ñuul tak karaw gi ci kaw teg ci manteau yu mhm. avec assurance ci télé. yow non du question de forme mhm. mais le mu ñuul. dafa taaru. waaw nu mu ah. ñuul. sol t-shirt noir. sol mhm. noir sol jean noir. tout noir le sol. teg ci ben ben benn manteau bu mais la tête haute le le relevé. di dox ak fierté dama koo xool man ma naw ko. yow tamit da nga ko xool ak fierté. ma naw ko mm-hmm. parce que dafa dafa nangu ni ko yàlla bindee pare assumé ko. Mm-hmm. loolu mooy dëgg. am na loo fàtte. non déedéet. nga ne la tête. haute haute. la place. bombé bombé tout loolu la ñuy assumé nit tamit nit da ngay assumé ñu la yàlla mm-hmm. bindee. ñuul. yàlla la xees yàlla yàlla la sécheresse yàlla la. nga wax. waaw poitrine bombé. tubarkal côté. poto corner yi bu nekk taxaw sa place. débordé dara débordé wu lépp normal. merci beaucoup sant yàlla. merci Diagne merci. Euh, Aba. Aba tey dañuy dugg tey tey dañuy dugg ci kaabu critique nag. <laughs> fan lañ jëm. kaabu critique la ñuy dugg dañuy dem France. i am nga visa. non yow yaa yow tamit jaajëf. am na visa yëpp kii international lu xew France. ndaw si. day dund France ak borom këram. Hmm. ñu am fa ñetti doom. ndaw si moom xalaas yëpp moom la moom ndaw si xëy commencé di am ak waa ji ay problème problème lan léegi nag da ngeen ko déglu attentivement nag. pour après seen analyse waaw. parce que xëy na après duñ jot ne li ko dal mu ngi ci moom. ndaw si neen daa xëy ñëw ci kër gi fekk jëkkëram di violer doomu bu góor. eh subhanallah xaalo. ah coow li commencé nee na dama porté plainte nag mais fu jël ay doomam garde di surveiller. à un moment donné mu jël téléphone xam naa def genre caméra cachée yooyu noonu jàppaat jëkkër ji encore muy violer encore doomam bu góor. ba mu am ci vidéo mais vidéo bi kanam waa ji feeñul mu dem porté ko plainte ci vidéo bi ñu classé ko sans suite fii may wax ak yow nag ndaw si jël nañ ñett doom yëpp placé leen ci assistance sociale yi. pourquoi parce que Néné Ndoss dafa am ay problème psychologique mo waja tas nañu. waja dem na mu dem mais mom ay domam muntu ci jot fim nek ni est ce que effectivement la waaj def motax tax ñu nangu doom wala ndax mom comportement motax tax ñu nangu doom bi dañuy dugg Ndoss ba pare. ñu dem. man euh, lañ téye woon samay doom tubaab ñu leen suite à benn problème euh, familial parce que seen pap la jotel pour affaire xalé yi donc affaire bi nak dafa doon yag na mi ngi doon ram ram mais man may doon tey sama doom bañ mu jégué sama doom parce que fi dëkk tuba bi lañ né xamna ni xamna ni ko bo waxé affaire pédophilie ak affaire go jigen rek da ngay daal di xulog ñom man bima défé lool duma dum ma du bon moom moom man su man ma ngi découvrir bima wosi né sama ñaarël doom bi parce que fi France kenn dula jappalé donc bima bayyi sama premier doom bi ci biir kër gi ma daal di euh, nekk hôpital maternité ma ma bisi fek fekk samay doom ci condition yo xamantene sama taw bi ci condition yo xamantene ne ne rafetul léegi man man lo bim ko defé na man j'ai pas compris affaire bi nak tek ma choc mais daw mo daw mo police que voilà ça m'a dépassé de telle sorte que mais mom mo indi problème bi bo bo legui parce que gennuma keur gi munu mo genn bo bo waxé da ngay genn que ce soit pareil que ce soit fif voilà c'est compliqué déjà mi ngi ni bima waxé affaire pédophile mi ngi ni place nañ samay dom donc loolu mo nek ñu ko continuer contenu beau voilà beau ma nek di uti ay preuve ci mom ma pour au moins man nee man au moins nit ñi mën ma gëm xamone naa ne ko ku góor ki def na sa dara mais bima ma demee ba di amaat preuve pour limi def sama doom léegi nag boobu fekk na maa ngi ëmb sama ñettelu dom bi grossesse bi yëpp presque xulo luñ ko def duñu wax dara ba bima joggé euh, hôpital ah là ça a été compliqué ma joggé hôpital nak euh, voilà les choses sont dégradées ça a été compliqué donc mu may dóor benn jël na pak sama kaw donc du coup euh, ma xam ni que li du dem léegi na bi ma pour affaireu euh, vaccin xalé yi ñuy suivre xalé yi noonu après ñom bu may waxtaanee ak ñom ñu ne ah mom de comme que ni la démé mais ñun jappalé bi moom mënu ñu def demande au niveau de l'état parce que yow sa affaireu kayiti yi ba léegi dañ la baña jox kayit xamuñu lu tax légui dañ lay jox ben association nga dem fofu léegi bima démé ci association bi wax leen ma dem porte plainte ak vidéo bobu ma yoron nak ma dem porte plainte ma porte plainte defee nag police nag trois jours ñu classé enquête bi classé enquête bi daal di ma naan waaw euh, da nga war a dem gi si psychologue xawma la ak lan ma ne ko yéen di leen di wax amul logique parce que yéen mënoo leen classé sama sama li ma leen indil ngeen ne dañ ne vidéo bi kanam waaji feeñu te waaj biñ ko woowee waaj dafa ne moom du moom an dafa bañ a avoué te ñoom France il faut nga avoué donc loolu lañ ma wax man nag may traîné ñu ma wax psychologue ma xam ne que ñii li ñuy def ñeneen lañ ma bëgg a def maanaam dañ lay traîné loo naan lay psychologue ay nii da nga am problème nii naan naa pour jël

pareegul de. waaw hmm? oh, am na lu manqué de. waaw ah, pareegul léegi nag xam nga nag euh, Aba Diagne. waaw ñëpp xam nañ ni bitim réew tubaab xale ak jigéen la gën a fonk. Mm-hmm. bu demee ba jël xale yi rek. am na lu tax. yaa quelque mm-hmm. am na lu dam ci wax ji de xaw ma lan la am na lu damm ci wax ji parce que mënoo porter plainte pédophile sa jëkkër. Mm. ñu jël say doom yóbbu dana demal seeti psychologue. lu mu lu xew. am na lu xew. yaa quelque qui marche pas. tubaab moom ay yëfam xam nga da koy teg ci yoon. da koy teg ci yoon. te am na ci yu bëri yoo xam ne si wax na ko dama ko dama ko dindi parce que ah maa ngi rek am ak Amady mais am na ci yu bëri yoo xam ne dama ko dindi après dinaa la dinaa la ko wax. mais ñu déglu deuxième partie. naa boobu nag yëf yi na waaj da koo préparé parce que li ma ko doon jiñ affaire de pédophilie moo ko métti di ko mënu ko muñ xam naa ne waa këram waxulee lépp lu xew te buñ demee tribunal ma wax ak ma ne ko waa ji léegi yow buñ demee tribunal jox ma xale mendi leen Sénégal mu ne ma waa suñu eggee ba tribunal mu daal di ma ne déedéet xale duñ ñëw Sénégal nañ ma jàppale ma mën a indi samay doom Sénégal ba pare gis nga appartement yooyu ma doon wax appartement yi yooyu may wax appartement yooyu fii lañ nekk fii ci Paris ñooñu nag créer appartement yooyu noonu ñu ngi fii état moo ni koy fayal ay appartement yoo xamante ni dañu naan dañuy jël femme victime de violence mënuma woon génn parce que ñoom affaire sociale bi France boo ci xasee dugg surtout ñoom ils sont tellement forts boo ci xasee dugg benn yoon dañ lay fichier fépp ñaa yaa ngi si ñoom mënuma woon génn kër gi rek laa mënoon dellu fekk na waaja bàyyi na kër gi papay xale yi bàyyi na kër gi parce que dañu njëkkoon am discussion moy bima ma hôpital première fois sama ay méru bim ko bim ko laalee non ba ma génn dem donc parce que dama génnoon dem hôtel ma ñëwaat ci kër donc di bi ma xamee damaa génnaat mu xam je sais pas mu bàyyi kër gi parce que kër gi ci tourum rek la nekkoon légui nag bi bayé bàyyee kër gi donc man amatuma fu mané ne je suis obligé des des assistance sociale en plus mënuma am avocat pour te dire avocat gratuit mënu mako am avocat payant mënu mako am samay famille jox nañ ma consulat participer na consulat bu Paris fi Sénégal Sénégal participé ni donc pour ma jël avocat ma jël avocat avocat bi ni ma sama doom bu mujj bi bi koy mujjee yóbbu di ko placé donc dafa bañ dafa bañ avocat bi dafa ne ñemewu ma dem te avocat beneen bi gratuite boo xam te ne ni roon naa ko jox ko dossier ma koy waat bañ jël samay téléphone ma xam ni que su ma demee tamit ci yenn association pour jël avocat dañ may lakk ay daadaa fa laa toll man daal en euh, fait euh, mesure bu ma bëgg mooy avocat laa bëgg juriste ku ma mën a jàppale état Sénégal na ma mën a jàppale ma mën a jël samay doom indi leen Sénégal lool rek laay ñaan sunu borom parce que xale yi ay sénégalais lañ ba nii may wax ak yow amuñu benn document amuñu kayit France joxuñu leen kayit man loolu laay ñaan bi ma gisee je suis bloqué de tous les côtés liggéey sax mënu ma ko def su ma demee liggéey ñu dem yàqal ma sama liggéey samay kayit ñu bloqué ko samay doom nag bëgg naa leen gis ndax depuis mois de novembre gisuma leen novembre lañ bloqué parce que voilà dafa demoon euh, placé sama yeneen ñaari doom yi biñ ko joxee biñ jëlee place euh, kii bi ci man dañ ko jox dañ ko jox 6 mois quinze jours mu dem place yi ñaar ñaar ñu ndaw yi ay meru moom la yoroon moom nag la dem placé waat mois de novembre bi moo indi nag problème bi bi ma bi mu demee daje fu may gisee euh, sama doom biñ ko placé depuis lundi nee na ma ñëw mercredi ma gis ko bi ma ko gisee nag mu ne ma dañ ma placé ma affaire nag metti ma man damay génn wax ak waa ji laaj ko ndax mu def place samay doom bu tax a chaque fois mu def place samay doom te Sénégal a ngi fi xale yi ay Sénégalais lañ moom am na fi ay mbokk man am naa fi ay mbokk pourquoi pas mu jël xale yi jël décision yóbbu leen Sénégal muy dem placé xale yi di leen jox tubaab xale yi di yàq ma xale bi waxee ni dañ ko placé lundi ma génn man damay wax ak waaj assistance kii xaw ma éducatrice la xaw ma psychologue la mu ne ma non bul génn ma ne ko non damay ma kon génn beneen porte ma ne ko non du ma génn beneen porte man damay génn fu ñëpp di génnee ma génn ma daal di génn dem di wax ak waajir waaj ñoo song ma dóor ma ay mbit sama kanam bi léegi nag Diagne. ci ci troisième partie bi ci laa ko doon relancer ci affaire euh, nit borom këram di sàkkoo doomam.

loolu rek mën nañu jël xale yóbbu leen. si si si si. seen coow xam nga seen xuloo bi seen say stable. waaw donc léegi nag assistance am. waaw dañuy xam nga tamit waaw. parce que xale yi bu ñu xëy di jàngi sax. ñeen jàngal bu ñu gisee ci xale yi benn benn faay. mën nañoo clamé ñëw assistance sociale la ñuy woo. mën nañoo woote. Hmm, hmm. def. léegi nag est-ce que viol bi effectivement lu am na wala lu amul. lol man peut pas ci peu parce que vidéo bi téléphone bi mu nekkoon gars yi. il faut mu xamni même avec ou sans vidéo yi. un problème yoy di am ñom ñaar sen couple. waaw assistance sociale dañuy téye ba problème yi réglé wu. mais bu tam problème de viol la. su mom hmm. supporte porte comme pour pédophilie contre son mari. Hmm. les le législateur français a l'obligation de faire des des des des tests médicaux sur les enfants pour savoir s'ils ont été victimes de ça ou pas léegi bu jigéen booy comme jigen bu la porter plainte viol. nga yóbbu ko yóbbu gynécologue ñu xool ko. Mm-hmm. on doit amener les enfants pour xool est ce que effectivement les enfants là ils ont été victimes de. viol ou pas loolu est ce que amu ci. est ce am na wala amul léegi nag laaj naa waaw néna na nañu hôpital. waaw def nañu expertise médicale bi. mais mom ba léegi gisul dossier médical bi. mais mom qu'est-ce que la bagay gars yi di ko di ko ber à côté dafa am ay problème trouble la mo xew. léegi nag voilà la grande question. parce que même ci problème ci ci problème bi ni consul bi dimbale na ko ci xaalis ci affaire xëy na avocat gi demee noonu dimbale nag du toll ak huit cent euros moom loolu moom moo ko wax boo dañ am procès ci mois d'avril bii nii Nanterre tribunal bu Nanterre mais lu ci am daal mooy fu mu dem day bloqué wu le pourquoi nag ah, te moom problème du ci moom ah loolu tamit nag c'est la grande question nag nañ déglu troisième étape déglu sama ex borom kër ex mari la sénégalais la ñëw ko mu fekk mu tëdd ci kawam de dama am vidéo bu quelques secondes sama téléphone mais téléphone ba ci bi association bi lañ ko toje bi ma duggee foofu parce que téléphone dama dem porte plainte ak moom yóbbu ko police moo tax ma laa lay wax ni que mënu am accès ci yenn documents yi je suis tellement bloqué mënu am accès ci yenn documents yi bi may xam dafa laal sama doom dama jóge hôpital maternité mu laal sama doom mënu sax dox ma xol ginnaaw fekk mu laal ko donc du mais ma téye samay doom bàyyatuma ko xale yi bàyyatuma waxuma ko xale yi parce que boobu man affaire daf ma dépassé xamatuma nu may def daf ma dépassé léegi nag bi ma téye samay doom nekk ci noonu xuloo ba commencé nag jubootuñu jubootuñu ci kër gi ba noonu noonu man génn naa sax si kër gi génn naa sax si kër gi boobu def naa presque six mois ma dem hôtel mais ma ñëwaat parce que man ni hôtel dafa métti bi ma ñibbisee na kër gi nag ma jël euh, sama téléphone bu benn bi ma yoroon bu weex ma jël ko teg ko ci kaw lal bi génn dem magasin dix minutes si téléphone boobu nag laa mom vidéo mom mais kanamam feemuñ le mais sama dom feñ le na baatam moom baatam waa ji feeñ le na boobu la police française ni que mom vidéo boobu noonu kanamam feeñu mom mënuñu mënuñu ne mom la vidéo bobu la wax foofu lañ classer enquête sans suite mais def nañ sax expertise médicale ci xalé bi donc normalement certificat médical bi dañ mako ko won mais waruñu ma benn certificat médical liñ ma wax moy y a rien y a rien ñom gisunu dara lañ ma wax ni secret médical ni juge bi mooy yor lolu ñu la ko wax man nag loolu moo tax ma ne dama uti ndimbal parce que dossier bi dafa xóot comme que ñoom nee nañ ni que waa ji avoué wul te kanamu waa ji feeñul mënuñoo wax ni que ñu waa ji moo def feey qu'est-ce qu'il y a dedans lu tax ñu jël xale yi bëgg leen placé moom waa bu mënul téye xale yi nañ ma jox samay xale ma génn dëkk bi sama doom bi mujj bi bi mu koy placé avocat bi ma fay xaalis bu demoon dañ may que dañ ko placé sans sama consentement dañoo sàccoon passeport u xale yi am benn moment boo xam ne yi Maroc euh, ma opposé wu sama biir sama biir néeg bi ma ne donc ma demoon nag def certificat de perte fuite police mais ñu bañ maintenant lu urgent mooy euh, voilà j'ai pas vu mes enfants le mois de novembre comment on tout sur euh, surtout sur ce plan là léegi le problème qui se pose mooy. Mhm. ñu bëri dañuy nekk bitim réew nga jékki-jékki dégg ñuy woote fii naan dañoo nangu samay doom dañ ko jox dañ koo jaay wala fekk na au fond luñ la mhm. yow nit ak xel di nga ne di nga xam ne pourquoi même bu fa di nga ne la moo ñu parce que ndigam amna amna ci ay dem docteur ak bu fekkee am na certificat médical bu xaatim ni gone yi siif nañu leen. Hmm. ki nu tuumaal ni moom moo leen siif dañu koy def présumé coupable. Hmm. dañ koy arrêté boo xoolee am na ci réew mi fii kilifa gu ñu jàpp. Hmm. ñu ko tuumaal viol. waaw bu ñu defee certificat médical dañ ko jàpp ko ci kaso bi. parce que il est présumé coupable de viol. suite à une plainte. ba keroog ñu koy jugé dañ koy dugal ci kaso bi. ñu ko jugé nag bu fekkee ni moom deful ñu bàyyi ko mu dem. loolu ndëgam Sénégal lay doxee noonu. Mhm. mag ci réew tubaab nga xam ne dañoo fonk gone. Mhm. ak ay xeex ay pédophile ak ñoom seen. Mhm. mais tam xale bi daal wax ji tam ci biir am na ci loo xam ne dafay lëndëm léeg-léeg mu leer doy na waar lu ma koy conseiller moom mii di wax en tant que frère moom kala doon sëyal Sénégalais wala. Sénégalais waaw Sénégalais pur sang. Sénégalais la doon koy conseiller mooy li assistance yi wax ak ñëpp. waaw mun na dem ñu suivre ko tuuti. seet ko tuuti moom itam waaw. waaw moom na dem ñu seet ko tuuti rek. Ah, ñu xool ndax bii sëb seere na waaw waaw. na dem tuuti rek ñu xool ko. waaw ba wane dara jotu ko. waaw waaw su boobaa fekkee ne wane nañ ni dara jotu ko moom kii boo xam ne wér na péng mm-hmm. ci xel. Mm-hmm. Mm-hmm. su boobaa dina mën a xeex xeex. waaw d'accord wax. c'est que may ragal mu song xeex ba ci biir. après mu am fu mujjee. ah da ah il est ñu ngi jégalu. <laughs> ñu ngi jégalu li mu subaa ñu yegg ko 77 157 17 17. allo présidence présidence.